asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw sant yàlla ak julli ci yonentam bu tedd bi maa ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu aq tey baalu aq ñëpp di ñaan yàlla di defal jàmm fu nu mën a nekk dellu siwaat nañ ci jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen site bi ñuy wax Tanime TV yi Seydina moo nekk ci xarale gi ñu ngi nuyu Baye Modou Dieng Touba 28 Minam Dekko mbokk yi tey taxaw seetlu bi mi ngi jëm ci xam naa bala maa tudd tur bi sax ma jéggalu leen bu baax wala bala maa tudd ñi ñaari tur yi ma jéggalu leen baax ndax ñii jàpp naa ne jaruñoo jox itte rawatina fii ci réewum Sénégal muy waa ji ngeen di gis xanaa su ma junjee sax di ngeen daal di xam tur yi ndax am na ku ko waxoon ne ko fene fene fen bu ñuul kuk kuk kuk xanaa di ngeen comprendre ngeen ak keneen ki ci des nga xam ne moom sëñ bi. moom it moo defoon fii déclaration benn bëccëgu ndar kàmm ne bàyyi naa lépp luy média Sénégal dootu leen ma gisati ci public bi wala ci site internet wala ci télé yi may wax léegi damay seere sama njaboot sama doom laa bëgg a seere xanaa xam ngeen junj war naa doy boroom xel <laughs> al isaaratu <laughs> ma jambal jaañ ma jambal wax de yàlla jërul jox benn itti ndax dégg naa benn xale def ci benn vidéo mu ne daanaka ni seex seex yirim sekk ni ko dàmbooj gaarale woon ak ni nu ko xamale woon sénégalais yi daanaka noonu la ñu xamale àgg na ci ba ne eh, dëkk bii la cosaanam eh, daaru marnaan gu siñ seex aw la waaye daanaka xale bi lam ca wax lépp lépp ak lam lijjanti daanaka loola xawoon naa doy soxla eh, ni dàmbooj melale woon seex yirim daal daanaka noonu la ko melale woon ma jàmbal mi da nit koo xamante ni daanaka ci ci ci li muy dund mooy ci histoire lay dund mooy ci polémique lay dund mooy ci lu lewut lay dund mooy nit la koo xamante ni yéene wut jàmm ma jàmbal feeg mi ngi xëy di mën a wax am kaaraangeeg boppam am liberté boppam ñi ci des ñëpp booy woo ñu xëy ba max leen ci kàmb ñu tàbbandoo ci ñu suulandoo leen concerné wu ko ma wul benn nit ci àdduna wala ci Sénégal ne yëg na ko ba ci président Macky Sall mi nga yëg ne sax moom lay jàppale jàppalewu ko intérêt boppam moo ko ca bàyyi intérêt boppam moo ko ca bàyyi te président Macky sàll war naa tàggoog ñi ci yóbbal bu leer naññ ba sénégalais xam ne ñii bi muy dem tàggoo naa ak ñoom muy Cheikh Yérim ma Madiambal Diagne mu yëg ne séqunu dara dara dara dara lu ak citoyen boo xam ne génn nañ ci ñoom ndax liggéey ma ma ma président Macky Sall bu amee dara lu ci kerec wala luñ ko taqal wala luñ ko sufuyaa wala luñ ko salteel ñoom ñi seen loxo génn ci ma jàmbal dafa génne benn téere ne téere euh, affaire aji saar ak songo nee na bi mu demee gis aji saar soutenir ko gis na ni kii kun war a soutenir la kun war a jàppale la te lii mu wax war nañ koo déglu ndax dëgg la aji saar ñaata yoon la wax ne ñaata yoon la wax ne maanaam songo séqunu dara audio yi wax na ko wax na ne dama leen doon nax ñaata yoon la ko wax ñaata yoon la wax ne dama ëmb maa sama ëmb booba la sama patron xam ne dama ëmb Adji Sarr ñaata yoon la wax sénégalais yi loo xamante ni wérul dëgg la da koy def ma koy def keneen di ko def songa di juum ñeneen di ko def ndax doomu aadama ji ak doomu aadama dafa am ci loolu nit koo lëmbaaje ay waxam fekk ca piix fekk ca loo xamante ni du la neex waaye nag nit koo xamante ni yow ci lii ngay dund ak i tamit nga jël réew mi yóbbu ko foo xamante ni affaire en la moom daf mel ni bindatul rek pour cadre journaliste pour sawe Sénégalais yi mais li muy bind mooy affaire sible benn nit boo yéenewul réew mi boo yéenewul mu tekk ci réew mi te yow nga tekk ci en tant que ku mel ni yow mën a tekk ci réew mi mën a am ay bien mën a am ay kii mën a am ab journal bay bind nit ñi di la déglu nga gis benn waay boo xamante def na quinze ans ci domaine Euh, jógati dikk ci politique bi yàggagu ci yàlla def ko ci li nga ne loolu du fi amee vraiment ma jambal sëñ bi kenn kenn xamul ma jàmbal bu fekkoon lii muy bind téere yi ñu bind mook Cheikh Yérim yëpp danoo bëggoon songo porte leen combat euh, ci porte plainte leen ñuy yéeg ak wàcc ñu naa songo ngay dem ak seex Yérim dara jam di wàcc euh, ñu koy xeeb ñu naa taxaw naag mënatu dem élection yooyu la bëgg mais loolu kenn du la ko may xam nga ne songo ruus naa taxaw mukk di benn benn këyit wala muy woo benn avocat naa ko Cheikh Yérim nan ma ko defal plainte wala songo nan ma ko wala euh, ma jàmbal nan ma ko xalaatu ko Cheikh Yérim lu mu bind dane affaire bii nga xam ne ci élection 2019 ni songo fekk nañ ko ci benn oto mu taxaw fa benn jigéenu ci corniche si benn jigéenu Gambie Moustapha Diop relevé question bi ne leen histoire bi bu yàgg yàgg la woon xam nga ñoom Cheikh ak ma jàmbal ay léeb la ñuy def maanaam histoire yu yàgg yuñ jàpp ne nit ñi fàtte nañ ko wala ñi ko xamoon jeex na ñu jël ko di ko répété di solal ko benn mbubb jox ko benn sant jox ko benn tur indi ko teg ko ci pénc mi te loola lu yàgg yàgg yàgg lu passé la vraiment bu fekkee lii mooy métier journaliste beeboo ñoom ñu lem seeni këyit ñu kii ko moom nag li mu bëgg xam na ne bu bindee dina am promotion bu ñu ko ci defal nit ñi naa nañ jënd livre bi mais livre bi du du jàll mook bu Cheikh Yérim bi ñoo yem du jàll. ku ku am livre bi wala nga gis ko poubelle bu la njëkk a jege na ko fa dugal li laa sóor wala nga xoo nga kii ko ci géej mu dem ci géeju Malika jàll foofu dem noonu ndax jàpp naa ne ñii du nit ñu bëgg réew mi du nit ñu yéene réew mi jàmm wala dara Ousmane Sonko fi mu toll mu ne Ousmane Sonko moo wax ne dina ma rey wala ma rey ko dinaa wut nangami sën pour ñu jële ji ko pale dinaa wut nangam yi mu wax yépp dégg na nit wax ko fi dina wax Moustapha Diakhaté lu mu wax ndax jël nañ ko yóbbu këram euh, ministre CNES bi lu mu wax ndax jël nañ ko yóbbu këram moom mi néewul euh, mars deux mille vingt et un néewul ay robel ñi ñëwoon fii Casamance lañ jóge ñëw fii ndax waa Casamance tax na ndax ay robel ñëw na fi ndax tax nañu yóbbu ko bële ñëwul fii gis benn waay boo xam ne dafa sol benn mbaxanaam benn mbubbam boo xam ne aadaam la mbubbam moo choisir ko mu neex ko mu sol ko ak mbaxana mun a robel yi dugg nañ dugg nañ ensemble robel yi dugg nañ assemblée lu mu waat di tuub amul keneen comme fu di formé koo xamante ni mi ngi yëg ak a wàcc booba ba léegi ñu koy soutenir ba léegi te mu wax dara du ci dëgg te Ousmane songo bi mu waxee ne Mame Mbaye Niang def na nangam ci saase leen tarawaaye bi yëkkati ko teg ko sis yóbbu ko ñaari yoon sénégalais yu bari ñàkk seen alal ñii ñàkk ci seen bakkan moom mi ngi nii bopp ba léegi ak xeesaayam di di dox di waaxu di dem ak ñëw asafurlaa damaa juum ñi xees nan ma baal damaa juum nan ma baal waaye ànd ak loolu lépp ma jàmbal mi sëñ bi bëggul réew mi de te boo gisee ni muy waxee di nga xam ne kii en lay waxal mais nag nit da ngay jéem a kii sa nawle lii lépp nag du ci jëmul ci Ousmane Sonko dëgg de lan la mën a gañe lan la ko Macky Sall war a jox xeex bi arrêté na gis na ne jàmm jaa ngi ñëw Sénégal yi yëpp ngi amaat jàmm nit ñaa ngi tàmbali di doxaat seeni soxla mu ne xam ne bu jàmm ji amee moom du dund moom lii am mooy coppet ci bii ndong ci bii sos am na waajoo xamante ni dane man ki may nettalil mën naa ko mën na maa mucc ci moom ndax bu nu toogee du ma wax dara lu may nettalil ki nga xam ne tamit daf ma bañ kooku mën naa am bu nu toogee du gis ci man dara lu may wanel ak kii waaye ki nga xam ne daf may sosal nag kooku moom awma ci menn pexe ndax fa muy dem di ma sosal moom mënuma fu nekk ma taxaw awma ci benn pexe daal kooku daal ci laa amut pexe waaye ki ma bañ am naa pexe ci moom ki may nettileel am naa pexe ci moom ki may sosal nag awma ci menn pexe ma jàmbal mii nag moom amuñu ci moom menn pexe lu dul sénégalais yi comprendre ko ne ku bëgg dund la Cheikh Yérim a ngi nii bi kii euh, affaire bi taxawee gisati ngeen ko ci benn télé fan yi muy def benn kii mi ngi def ay analyse ak technique kalkinam mag yooyu bërki démb gis naa may mun a waxee di laaj eh, kii naa ko ndax euh, doon nga jàppale see euh, kii Diop Sarr bi muy nekk maire wala dara loolo <laughs> question la bu boo xam ne du question journaliste la ma jàmbal Cheikh Yérim moo toog ne may mën a Ndour yow man kii woo na ma ne ma jàppaleel amadu Ba yow mi woone la loolu question ba nga daw ko question ba bu daw a daw bu daw ko nit ñëpp xam ne dangaa dangaa fente question bi mais question bu dal la tey nga dikkati laajati naa ko jàppale woo Diop Sarr yow kay da ko waroon ne ko la nga ma waxoon ci Diop Sarr pour ma soutenir ko loolu defal naa Cheikh Yérim wax na ko fii mais bu leen réer ni journaliste dafa am benn qualité bu am koo xam mën ngaa xëy toog ak xalifa général de di wax muy wax mën ngaa xëy toog président man ngaa xëy fu nekk nga am ko personnalité boobu nga am ko nga dikk delloo journaliste ba mu mel nii turuma jambal jaañ ci journaliste loolu gàkk la loolu loolu sobe la loolu euh, daanaka kenn xamul noo koy tiitaree mook seex yéen nit ñi nag li ngeen bëggoon ñu topp leen ci loolu dafa jeex mooy di nax nit ñi ak di dunde nit ñi loolu jeex na dañ leen a considéré woon comme nit ñu sérieux rek mais bi ñu yëgee ne sérieux amul booba lan taxaw leen xam nga di bindal Sénégal ab livre fii nu toll boo xam ne waxoo ci économie waxoo ci wàllu koom waxoo ci développement waxoo ci dara lu dul di nettali histoire yoo xamante ni sénégalais yi jéggi nañ ko wax dëgg yàlla ko wax ne ma jàmbal mi bëgg na réew mi xamoo sax ma jàmbal kii la nu toll dafa toll ci bëgg xam na ne président Macky sàll génn réew mi moom génnam réew moom dundam dootul neexati ci réew mi mu bëgg nag salfaañe réew mi ba président man fee toogaat sax lu mu toll deux cent wala ñu mën koo soutenir ba mu gën a jekkas ndi ko waat waaye loolu du am ma jàmbal loolu du am beneen bi ñu koy mujjee tey dama xëy rek sama doom ji ne ma <laughs> papa waxal alhamdulilahi rabbil alamin dindi nan bariyaasi barkaasa bin barkaasa kër Ousmane songo ma ne ko ah loolu kay du moo président Macky Sall nee na duma ma dem troisième mandat ñoo yam benn du ci événement ah waaye ma ne ko waaye laggal fi waay turandoom ñaata fan lan ko ba gaw gaw nañu kër ga arbaxina yow ma sittan arbaxina yow ma tisxaar lii doy na fecci war ma ah ma ne ko waaye toppal fii loolu naa Ousmane ñu defoon ko ko sëñ bi nga naa ma loolu loolu day loolu loolu waaye demal toog waaye demal nga ndékki boo dee ndékki loolu du du du événement waaye